Sonko ak kii di Mélenchon ni kii démb mel na am na ku nekk ci bu mu jokkoo bi asalaamaaleykum waaw asalaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. waaw salaamaaleykum. bu baax kilifa gi. di rafetlu émission bu baax. macha allah. man de waa ji ñëw laa bëgg a xam ban ISRA France. Mhm. Mhm. ah. di wax moom mbirum sexuel ah, waaw na mën na mën na nekk de. ah man de yaakaar opposant la dégg naa fa dégg naa jiitu du fa daal la dem. Hmm. kan ci Mélenchon bu nekk woon Sénégal daal. Mélenchon. Mélenchon waaw. waaw opposant la moom mooy mooy mooy leader de l' opposition bi bi gën a fës au niveau au niveau de la France ah. waaye léegi nit koo xam ne yow nee nga. Hmm. Mélenchon moom nga gëm ay idéem ci France ni moo baax. Hmm. yow itam nekk ci Afrique. ni mën ngeen a ànd liggéey. nga invité ko ñeenti fan. yow ngay wooteeb jullit nit ku baax nit nee na nit ku sell nga. ak nan bàyyi nag déballage yi nuy wax ay affaire ay état ay nangam nañ ko bàyyi maanaam waa ji moo wóorul woon a toog ak Ousmane Sonko ay propos yooyu loolu mooy problème bi Ousmane Sonko li daa nekk Macky Sall ak mbirum sexuel ay faram yu kenn xamul moom wóorut a am gan mu toog ak si fam toogee muy université na si bàyyi xel nag mm-hmm. université la nekk mm-hmm. toog si salle université yi. wax ay propos mbir mu may góor ak góor di say jigéen a say ba am na ñu doon tàccu da leen a arrêté. dëgg la ñu vidéo nit ñi déglu ko am na doon tàccu mhm. mais xëy na seen ñàkk dégg wax ba ilaa ay dox yu ñu ko bon. moom moo tax après peut-être ba ñu comprendre xëy na boobu la ñu arrêté tàccu yi. non d'accord waxuma loolu waxuma dama am na ñu fa bu wax. Mhm. université nit bu faa ma nekk tubaab nit di wax te comprendre li wax. kon mhm. ña fa ñëwoon ñan la ba dégguñ tubaab sëñ bi faaw mu sëyee sa bàyyi suñu dabala suñu suñu yàlla ma ci li liñ bëgg a nekk yàgg nañ koo xam ñoom yàgg nañoo xam ne Ousmane Sonko mënu fee fekk doxal ci lu dul doxalin état mais bu ñu ko daax dañ daan lànk moom bu leen gëmloo ay fuglu ak dëggu ak ku mbaax si moom sëñ bi naa fekk daa mën a suñ Ousmane Sonko di fóonantee koo xam ne mi ngi ñaan ni nan bàyyi góor ak góor di say jigéen ak jigéen di say mu di ko jox loxo ak ñoom fi ñu teg Ousmane Sonko ku seleti di ko tuddee wàlliw lu leen koy tuddee yooyu boo koy wax nag ñu naan ay discours bi mu wax Ousmane Sonko dafee dafaa wax discours benn discours boo xam ni nga ko seetaan ci vidéo yi ko woon lu mu fa wax rek wax mais li defee tudd lan wax dañ koy wax mu leer te Ousmane Sonko ñoo ngi koy ñaan buy def déclaration politique générale am na wax ban position la am ci mu góor jigéen parce que yii parce que mënoo sëñ bi ay tubaab ñaari tubaab yu njëkk a ñëw. waaw ah, ñoom waxoon nañ dañ koy dañuy dañ bu ñu toogee ah, loolu moom ñu ngi leen ciy xaar bu baax a baax. sëñ bi mm-hmm. ku baax. Mm-hmm. dama ni ñun ñaari njiiti tubaab yi njëkk a gis. ñëpp nangu nan ne seen jitte ak seen i mbir. mooy ñoom daganal mbirum góor jigéen ak góor di sëy jigéen ak jigéen di sëy loolu seen philosophie bopp ñoom lañ gëm. ñooñu nag ñu xam am na ñeneen ay am na yeneen yu ci fure ñëw ci ñooñu pourquoi ñooñu ñëwul de. su Ousmane Sonko moom Sénégal la matt gi tàkk rek boo xoolee ni muy doxe ak ni bésu jëfee doxee. moom na matt gi tàkk moo ko intéressé ba ba muy tukki sax réew yi mu tànn yëpp bu dee Mali opposant amatu fa tas nañ parti parti opposant yi yëpp mhm. bu dee Guinée góosaa nga fa mënta fexe ba def élection mhm. bu dee Burkina Faso waajal lànk ne mënta fexe bu fii ñëw fii yow ñi na ñi nga bëgg naw la yëpp toujours mooy ñi yées ci état c'est aussi bés bu ñu fay nag tey si gën a encadré boppam mhm. parce que lii muy wax Ousmane Sonko ku ku ku bëgg dëkk sa dëgg rek ñor la nii muy doxee du doxalu nit ku bëgg dëgg rek étape nit sëñ bi Sénégal amul balaa amul amul kàttanu xeex ak force yi am ci adduna bi lu ne nañ ko maslaa à cadre suñu jaboot daf lay éducation ba kaanu fii tegu mais tey daf na yëf yëf yu gës def na ko tey sëñ bi toog toogal nit ku tal ba def na bu nappee naan la Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko ñun intéressé wuñu yàgg na koo wax yàgg naa wo yàgg na woote ci manifestation mu dem sàmm jikko yi yàgg na ko yàgg na yàgg na faa dem lu mel nii la naan wax waa ilaa lu ko raw loolu loolu du lu bees ñun mm-hmm. kenn di li jaadu wut ca kenn ci ñëpp war ko bàyyi xel Ousmane Sonko moo wërta xartu koo xam ni Ousmane Sonko day toog Sénégal yëpp toog kooka Ousmane Sonko mm-hmm. gëm kooku kooku war a am philosophie góor jigéen moom gëm ko Ousmane Sonko toog moom loolu mu jaadu wut ku ko wax ak ku ko waxut a nekk moom nag ku yàlla nattu la barke Ahmad Bamba ku aw natt suñu borom la te natt boobu nee ko subir ba mu jeex takk takk takk takk takk parce que réalité day def nit moo tax nit aussi àdduna loo man di wut ak loo man di wax dee ko wax sa aqulaay taala ak yàlla rek tax boo gisee noonu politique politicien du ko dagalal ak fen politique politicien ñooñu ñi koy ñi ko gëm ak te bind leen ko ay mbiram di ko dañ koo tegu ci gëm yàlla ñoom ñoom day politique rek parce que ab livre la bu leen bàyyee xaw ma moo ko bind ab tubaab bu loo xam yooyu booy yaa xam ni ngay wutee na nga fexe ba am rek Sonko nag yooyu sénégalais yu bëree bëri gëmal nañ ni ndégu si waaye bu dee man nag mus na maa gëm ni kii yi muy wax ah li mu ci gëm bëriwul de waaw na jéem a fexe nag université bee bu fa yóbbooti gan nga xam gan yi fa yóbbu mooy ñan loolu mooy dëkk sëñ bi dem ba saar université ba bu gën a mag nga dajal fa ay universitaire ay gone yu mag ne fa ay gone koo xam ne fa nga am sa gan bopp sëñ bi li jaaduwut soo loolu man man dama bëgg Sénégalais wax li jaaduwut mooy Ousmane Sonko toog ay Sénégalais toog ñu taxaw di oser ci koo xam du dara si adduna bi ab opposant dong la d'accord ak laa sax ab chef d'état wa ilaa ku jiite dara ku jiite dara si ku jiite dara maanaam si kuréeli xam ne day xeexal am aw askan taxaw daal ni man kat lii ak lii dafa am comme Barack Obama bi mu fi porté bi mu nekk chef d'état Amérique dikk proposé loolu Macky ko loolu mën naa nekk mais kii kenn ab opposant la bu Ousmane Sonko invité mu ñëw si dëkk bi loolu ma lay gëm loo moom bu fekkee waa ji naw leen la waa laa xaritum la gëm na ko kon Ousmane Sonko am nay xarit yoo xam ne dañuy prévoir ay góor jigéen soo leen ñu da ay xarit day am xarit yu prévoir góor jigéen da loolu dëgg sa moom moo ko assumé tàgg waaj wax ay jikko yu waaj am loolu na ko teg moo moo jiitu moo jiitu moo jiitu bi moo jiitu bu bërki dem ba ñu ko def dafa tàgg waaj yi wax ko ay jikko yi rafet yu mu am kon jikkoon yi lii da see bokk da nga góor ji góor a góor sëy jigéen jigéen sëy bu ñuy bëgg rek naan Ousmane Sonko propos yi mu wax yu ma xut mais jéem a dimbali aussi ñooy fay parce que ñooy fay bi ñu toogee ci ba léegi lu sérieux lay dox dégg ko si benn déballage mu ne si ba booy seetlu sax xoolal Afrique yàlla nga baal ma géej gi nii VRN bi ñu ko arrêté Ousmane ñu ñu ñu fa tegale tànkam moom nag muy def nag nit ñi boo koy wax nit ñi day mel ñu yàqul daram nee na jéem a baax yor jikko ju baax jéem a rassembler africain ak adduna bi moo gën a rafet réew yu koy jéem a def gis ngeen fan mujjee bu dee Sénégal nag Ousmane Sonko incarné loolu loolu ñun parce que fii ay valeur dafay am ak i jikko Mali ay ay ay ay ay boo tukkee nii dem ay Europe la fa sëñ Touba am si këri sëñ tubaa muy Amérique muy Maroc kooku ñooñu dañoo am ak ñoom nun ma di mel am nan xalaaxa bu nu séq ak moom mooy ak baax gu nu may yaatal na ko ñun Sénégalais yi loolu Ousmane Sonko duñ ko yàqal bu amee problème personnel boppam wa ilaa ay nit di ko ruux ngir possible am si Sénégal na ko na ko moytu ñun dañoo am ay réalité gëm baax gëm jikko ju baax gëm wax ju baax gëm ni nit baax gi nga nekk yaay xeex ba defal ko sa bopp waaye waxuñu ay déplacé ay xas ay africain ay ay chef d'état nit xam nga li mu doon wax li mu doon wax chef d'état boobu la tëgg ko fenn op opposant toog rek mu bëgg koo tàgg rek loo loolu loolu la signifie hmm. li li mu wax président France boobu noonu xëy na opposant bi fa nekk xam nga du ko wax rek hmm. mais loolu maa naa ñàkk ba si bu defee ma bientôt mën naa dem France hmm. mën naa dem feneen mais pourquoi bëgg a jël haine gi ak soxor gi di jël ay réew leen tàggale su loolu muy seetaan liggéey seetaan la yàlla na yàlla musal ci Ousmane Sonko ak ñi ànd ak moom ak ñi yore xalaatam képp ku xalaat Bassirou Diomaye Faye rek ak ñi ànd ak Bassirou Diomaye yàlla leen fi yàlla saxal te jëlee fi ñii man jëmul. ok jërëjëf jërëjëf. ñu koy jaajëfal bu baax a baax di xaarandi keneen ci buumu jokko bi 77 810 90 90 ngeen mën a dugg addu euh, ci li nga xamante moom mooy di rencontre bi ci li nga xamante moo di waxtaan bi nag bokk na ci bonk yu bari yoo xamante ni waxtaan nañ ko fa démb lu dem ci li nga xamante ni moom moo di euh, franc CFA bi bokk na ci également lu jëm ci euh, accord yi nga xamante ni war na am France ak Europe asalaamaaleykum. ñu ngi lay ziar bu baax. waaye delloo ziar di la émission bi. macha allah. ngeen di béy bu baax a baax. Mhm, ñu lay ziar bu baax. waaw sëñ sëñ boobu génn noonu franchement. Mhm. Mhm. Euh, man day patriote la te man damay man damay défendre xam nga. Pastef. di défendre Ousmane Sonko. ci laa dëkk. booy xool sax. ci rajo télé yi boo déggee Elzo Tëngéej di nga ko di ko war a bàyyi xel. Mm-hmm. mais kii génn nii. seulement li mu wax dafa am ci loo xam damay d'accord ak moom gis nga. Mm-hmm. man jàpp naa ni tubaab bu ñëwee fii. Mm-hmm. li fi dugal moo góor jigéen. war nañ koo tontu loo xam ne tubaab dootul xalaat ñëw di ko wax suñu voisin bi barki Demba Ndiaye Yaya Jammeh ak lu mu dëng dëng dëng dëng. moom ay position am daan rester ferme dégg nga fi booy xool euh, vidéo boobu mu naan jógeen fii ku ko fi xoolal ku ko fi jéem a dund dama lay rey comme xaj maa ko wax hmm. te dégg nga maa ko wax jooju tubaab bi la doon lancer défi tubaab loolu la ñuy béyee défi dama lay rey comme xaj hmm. mais mu teg ci maa ko wax loi bi nañ téye seen i loi seen yooyu beeboo ñun ñu lekk suuf moo tax yaay jàmm franchement man bu ñuy wax ci moom affaire parce que affaire affaire diine sariya moom moo ko fi doon góorgóor waa da ñuul wala nga weex mais ay tol dinañ ko ñu ngi koy toloo rek amuñu ñoom problème li Macky Sall tontu nag non yooyu daal man Ousmane Sonko su ma sañoon daal ak moom li muy woote ah day respecter parce que loo xamante ni yow yàq na askanu lëm xaw mu lóot ku nekk dégg na la yàlla mujjee ak ñoom fa yàlla mujjee ak ñoom mais pourquoi tubaab bu fi ñëwee di la nga tontu ko loo xamante ni tubaab dootul xalaat xoolal. Mhm. parce que nag suñu boroom da ànd ak moom nga gëm ko na yaqinan imaanan bu ko defee mu dooleel la mais booy sóor nit ñi bu ma leen tontoo lu vulgaire wala leen naqari mën nañ maa xeex fi non da ngay gëm yàlla benn wala nga nga nga weddi yàlla rek. waaw gëm yàlla te wóoluwoo ko moom kooku moom suba Ousmane Sonko moom war na xool ni fi mu jógee liñ ko fexeel yëpp mu rëcc ci mu tëcc dem ba tey toll position premier ba fal président fal député yi fal xam nga euh, nu dem ba fal njiitu réew kon kooku yàlla seetaanu la waaw la nga ànd yàlla nag ba mu di la dooleel kooku waroo ci dellu ginnaaw yootaa da nga war a mën a gën bi gën di dëggal sa bopp di wane ne suñu borom rek fi ne tubaab bi mënuñu buñ dajaloo ñoom ñëpp di la xeex te yàlla namul ci yow toroxte mënuñoo mënuñoo fexe ba toroxal la rawat na nag koo xam yow yaa ngi taxaw di défendre diine suñu borom ji kon man doon naa séntu ci Ousmane Sonko li ma koy paral paral li ma koy bëgg bëgg mu tontu woon tubaab bi tontu boo xamante ne xoolal. doo tubaab dootul xalaat xoolal di ñëw fii suñu Sénégal parce que nag attention li waa ji wax nii dafa am solo de. tubaab mhm. mi ngi fii ñëw di ñu premier ki fi ñëwoon noonu ki fi ñëwoon sax moom peut-être waxul loolu mais tey jii bu ko bu bu xam nga bu tontoo lii tubaab ëllëg dootul yi ñëw Sénégal di ñu di ñu dugal yooyu. waaye nañ nañ nañ góorgóorlu ci ci sariya suñu borom bi mooy suñu njiglaay moo ñuy defaral suñu àddina ak suñu àllaaxira mhm. waaw mais képp ku nga xamante ne du mooyu nga sariya suñu borom bi mu tag moom sax wax na ci alxuraan nee na wa man axrada an dikri fa inna lahu maisatan dankan wa naxsiruhu yowma alxiyaamati ahma xaala rabbi lima asarani lima asartani ahma waxat kuntu basira xaala kazalika atatka ayatna wa kazalika yowma yowma yowma tunsa loolu la wax nee na suma diine ji suma sariya bi suma santaane ji képp ku ko dumooy ak xeet woo mën a doon nee boo ko dumooyoo nga ñàkkal ko fayda mu jël ko ginnaaw Mm-hmm. dinaa fexe ba suuf li muy yaatu yaatu ci li muy yaatu yaatu ci yow ma xatal ko ba nga xat mm-hmm. dinaa fexe ba wërsëg li muy sakkan sakkan sakkan sa coono moo ciy ëpp sa noflaay ci ñi gën a yées mm-hmm. dinaa wax kay dinaa fexe fexe ba nga xam ni yow lépp lu nga xamante ne rek mooy dalal xelu doomu aadama foo toll sa xel ne du dal day rëng-rëngi dëgg la kon fonk santaane suñu borom bi doon jullit akkan ba nga xamante ni nit bu ñëwee di la jéem a cuub ci indi la yeneen valeur yu dul yu dul lislaam yow nga woon ko carrément ni ko man lii ma ne moo ma gënal addinaa li ci biir bu ko defee suñu borom dalay kon ne di la dooleel mais tontu ñuy tontu tubaab yi dafa légère man moo tax man Yaya Jammeh dama ko naw moom dafa resté ferme ni góor jigéen du ma ko fi ku ko fi def ma ma comme xaj ba pare teg ci maa ko wax mais jullit noonu la Yaya Jammeh moo fi daan doon tax moom di ko téye yi di interpréter tubaab loolu rek lay bañ a gis maa ngi dégg sax benn euh, professeur mu ni sama benn waaye laa doon gunge ci aéroport muy ñib bi ñëwee ci oto ñu teg teg ñu euh, ñu gis ñu teg nakkaa ñu ci kii bi noonu tableau hmm. de bord mais bi ñëwee dañ koo téye fexe ba yàq ay téye itam hmm. waaw rek lay bañ a teg mais yaay jaay moo fi doon téye kaa di wane ni ak lu mu dëngoon dëngoon nag yu wane ni man lii laa gëm te lii laay doxal moo fi doon góor ko nit nan la rey moo fi góor góor jigéen du dëkk Gambia hmm. moo fi doon góor góor ci sariya loolu nag ndegam yaay jàmmee ko moom wax ma suñu boroom wanu ko dara ci ay ci ay kéntaan wax ma la Ousmane Sonko mi nga xamante ni état lëmm xeex nag moom pendant quatre ans hmm. te mënuluñ ko dara muy triomphe di triomphe di suma xarit la lool de ñoo bokk tur mais nag man bëgg naa hmm. moom mu reste ferme ci ay tontoom lépp lu nga xam day ayibal diine ba ci sax ñii nga xamante ni sax ay opposition ay opposant lañ nekk Sénégal nga xam dañuy xajamal bu bu moom na xool rek tant mi ngi jubal di ànd ak suñu borom. Hmm. tant mi ngi góorgóorlu li nga xamante ni mooy jub ak li suñu borom santaane luy dëgg mu dox ci ba mu mag tëj luy caaxaan. Hmm. ak lépp luy yar bu mu ci xalaat dañ may folli ëllëg fal yàllaa ko yor folli yàllaa ko yor. Hmm. képp ku bëgg sax ci li nga doon da ngay jéem a yow ànd ak suñu borom bu ci ragala wéet suñu borom dooleel la. macha allah. maa ngi jégalu kon jéem a may ah, jërëjëf jërëjëf yi rafet na am na solo lool ñuy xaarandi keneen ci bu mu jokkoo yi ci 77 810 90 90 mu wax lu am